ذكره والله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 تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى من الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم نهاية الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من قبل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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره بمقدار عظيم وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طويل لنا عمرنا سهيل لنا بدنا وعبنا الرسول توفيق يا الله ودمرا كل أحداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أعداء تدري بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أعداء تدري بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله barke Seexul Xadiim Seex Mbàkke Caam moo ko wootee waaye bi mu ko wootee wootewu ko ci boppam rek a tax mu di ko woote da ko woote ci ndigalul suñu borom subhaanahu wa taala mu yéene koo bokk ak ñëpp waaye mu am tuuti loo xamante ni dañ ko ci jiital muy kii nga xam ne moo di xalifaam di kilifaam di kilifa jataay bi fii nu toog nii di bàyyi alaaji ma jaañ muy kilifa goo xam ni ku ko xamul dégg nga ko ci loo xamante ni ak baax ak yiw ak doon liggéey liggéey yu bari yoo xam ne ay ngërëm daje na ci moom muy alaaji ma jaañ ñang dëkk Thiès di kilifaam goo xamante ni moom Cheikh Thiam mii yëmalewu ko ak dara yaakaar naa doomam a ngi toog doon ànd ak moom guddee ak bëccëg di njaga ñang waaye xam na ni Cheikh Mbacké yëmalul ak ma Madiagne dara man naa ni li nga xamante ni sax wasi la na mu defub sëriñam noonu la def Baye Madiagne mbaa nu ko raw kon Cheikh Mbacké lépp lu muy def walla lu mu am wala lu muy xalaat muy guddi muy bëccëg Baye Madiagne ca jiital Baye Madiagne it mate ko ba tax Cheikh Mbacké jiital ko ci lu mu mën a doon ndax Cheikh Mbacke kat lu mu man tey ma Madiagne la lépp lu Cheikh Mbacke man tey baay ma jaañ la tax na bis bii bis la boo xamante ne la ko waral nag mooy sunu borom subhaanahu wa taala la xam ne bis bi génnul dara yàlla dara yàlla bis bi génn ko ku am gis gisu baatin nag mooy xam li nga xam ne mooy dara yàlla ndax soxna Xadi Baara kenn ku ne xam nañ sëñ Baara Mbacke lu mu jur wàllu la moo ko wax ni góor muy jigéen soxna Xadi toog na ci nee bii kere bi ñu ko dalalee dafa wax ni maanaam lu ko tax a jóg am na lu euh, dara la ndax moom bu jógee ñaari mbaggam yi juróom ñaari malaakaay tong ci mu ne ne di ramuy doomu aadama ba kër muy dellu këram toog na ci néeg bi ñu dalal ko mu wax loolu mu ne cant gi génnul dara suñu borom Cheikh Mbacke Thiam lii ngeen gis mu di ko def suñu borom te suñu borom la bawoo seere laa ci ndax yabal na ma ci moom ba tàyyi bis bi ma jëkk a demee ci moom ki nga xamante ni mooy doomam bi ma génnee dafa fekk ma toog di xaar di soxna si mu génn ni ma koo soxla man ko soxla man ko dañ maa yónnoon ci moom de mu jox ma benn carte visite moom Cheikh Mbacke bi doom ji yëgloo soxna Xadi mu ubbi ma yegg mu ne ko Cheikh Mbacke mu ne ma Cheikh Mbacke am xaritu boromam danga naa ma xaritu boromam bi ma génnee carte ko jox dana ma déedéet defal sa poos boo ma nee Cheikh Mbacke rek doy na kon loola seere laaj kere bi ma ko waxee benn jànkat ni ko fanee de jigéen naa sa kër dama dañ ma faa yónni woon mun ma ci fan man ko kër soxna Xadi kaw baara mun ma ko la yónni woon de bëgg na laa dimbali xam nga kooku nga ñëwoon man ko ah, xaw ma ko de waaye kam kam kam ma yónni man moo ko xam mu seereti ni bis bi yàlla kese la sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Mordoñ Mbacke biig la fi jóge la ci ndax nit bu fekkee da ngay kilifa Mbacke Mbacke Cheikh Mbacke ànd ak moom ba ci sëñ Sidi Muxtaar waxtu wu koor ñu xàllal ko mu dem ba yegg ci moom Cheikh Mbacke Cheikh Coro sëñ Fallou ak ki sët bi sëñ Cheikh Sidi Mokhtar bi Cheikh Mbacke yegsee sëñ Fallou ma wax loolu nee na donte Mbacke laa sant bu ko keneen waxan dama koy weddi waaye maa toog teewe mu ni sëñ Sidi Mokhtar yàlla nee na Cheikh Mbacke Thiam sëñ Sidi Mokhtar jox ko noppam mu wax ba noppi diir bi fi sëñ Sidi Mokhtar nekk ba ni mu fi jógee Cheikh Mbacke mi ngi liggéey sëñ Sidi Mokhtar di ko defal di ko dindi ci ndigal sëñ Sidi Mokhtar kon na ngeen xam ne bés bi yàllay kese la Cheikh Mbacke nag mooy damay faral di wax ni ko boo ànd ak dox yoon Cheikh Mbacke dalay wax yow nga toog moom mu lang ndax gooyee fam waaye nag mu dis lool ci def def boo xam ne sunu borom ak ko may cant gi moo ko ci jox ndigal sant ma sant gu fees ànd ko ak say bokk ak julliti yàlla yi kon bu ngeen gisee bis bii mu tàmbalee wan ko ci ginaar ba ciw bëy ba cim xar mu dem ba ciw nag ba ci ay nag ak i giléem tey nag du ci lu mu ci doon diggal la ci am démb nit da koo woo ni ko nag mu ni ko awma ci ndigal bi mu fatoo ba génn da ko ni déedéet bu ko indi awma ci ndigal ñu demaat ba tey nit kilifa woo ko giléem gee ngeen di seen kilifaa ko yónnee waaye ba léegi nag day dem ba xu dugg rek ba am ci ndigal mu war a dem ci bis bi kon du Cheikh Mbacke ci coobareem rek lay doxee coobare suñu borom lay doxee waaye lay tax mu dox ndax tey jii baat bi nga xeeb ba waxan ko ko bala mu la cee tontu daa fatu ba am ndigalu suñu borom mu soog laa yu kooku mooy Cheikh Mbacke Thiam. addunaam nag dara dara dara ñoru ko lu dul yàlla yi kese lu dul yàlla amu ci defar amu ci yàq Serigne Touba moo jëkk woote sant leen ma suñu borom yaakaar naa bu ñu ko déggaatee Cheikh Mbacke jaamu yàlla sëñ Bas Coro. sëñ Fallou daa wax démb ni ko sëñ Bass man euh, sa waa ji sëñ Fallou man jaaxal na ma ndax li ma déggante ci Serigne Touba sunu wasila lañ ko déggan sant leen ma sunu borom ci sunu waa wet laa ko déggewaat mu woote ko sant leen ma sunu borom waaye xaritub sunu borom Cheikh Thiam xaritub suñu borom ci moom laa ko waat kon bis bi yàlla yi kese la. nañu ñaanal góor gi. nañu ñaanal alaaji ma jaañ bàyyi ma jaañ ñang ndax ñëpp xam na ni moom mag la. ndax ñëpp xam nañ ni moom mag la. heure heure bii démb. hôpital la nekk ñu koy samp ay biteel. hôpital de fa la nekk ñu koy samp ay biteel. waaye a a xew jàmm. dani nu ma mën a def bisub seex a def bisub seex Mbàkke Caam bii. dinaa ca teew. a def dina ca teew. suñ doon samp a euh, foofee ñu ma ko sampe biteel yi. ba mu ko waxee. ba mu da ko ni wutal ab kaas moom Cheikh Mbacke Thiam. def cam ndox ndox. fab téléphone bi këpp ci. fab téléphone bi këpp ci kaas bi. su ma noppee. nga naan ko. nee na mu def noona. nee na kon loola. mandarga ya. mandarga ya. ah méngoo méngoo na. ak li doon wax. ma doon wax. ndax may. nee ak may. fu ne lay jóge. fu ne lay jóge. di dem fu ko neex. di dem fu ko neex. yàlla bi mu nu jant bi. nee na yàlla bi mu nu boolee jant bi. te kenn xatalul sa morom. te kenn xatalul sa morom. xam na ni. nee na ku ne xam na ni. bu nee yàlla may na ma lii. bu nee yàlla may na ko lii. di ko wone. di ko wone. nit ñi di ko gis. ku ne war na koo mën a gëm. ku war na koo mën a gëm. ku ko gëmul itam. nga bañ koo diingat. nee na moom mii nag. sant gi war ci moom. wax na ko démb. jébbal ko njaboot gépp. jébbal te njaboot géppitam itam. nii seex mel. moom rek lañu mel. ñoom ñëpp a baax. ndax bi mu tàmbalee ba léegi mi ngi jooy. waaw. loolu waaw. ñeewante guñ ko ñeewante. nee na njaga nee na li waral li ñeewante guñu ñeewante Baye Madiagne. muy jibi mee. muy jibi mee. di papa ñang mii. di papa ñang mii. yow yaay seenub sëriñ ñëpp yaay sunub sëriñ. na ñoom ñëpp moo leen jur waaye ñoo di seenub sëriñ. li jibi nee na li jibi wax rek. buñ nee buñ nee sëñ bi nee na. bi nee na. nangam ak nangam. nangam ak nangam. mun la amul ci soxla ci yow la am soxla. mun la amul ci soxla ci Baye Madiagne la am soxla. kon loolu ak cant la. nee na kon loolu ak cant la. cant gi yëpp moom la ndax moom mii. moom mii di bàyyi ma jaañ. Cheikh. Cheikh Mbacke. damay wax ni. mu ni day wax ni. sunu ndijaay la. sunu ndijaay la. sunu sëriñ la. seen sëriñ la. sunu xarit la. sunu xarit la. la seex mi di sant. nee na la waral seex Mbàkke di sant. lu ko sunu borom defal la. lu ko sunu borom defal la. muy sant sunu borom. muy sant sunu borom. kon loolee lu war la ndigal la ci am. nee na kon loolee lu war la ndigal la ci am. kon ndigal la am. ndigal la ci am. kon loolu. nee na kon loolu. li muy def nii. li muy def nii. ñun ñëpp la ko defal. ñoom ñëpp la ko defal. sant nañu bu wér a wér. nee na sant nañu bu wér. loolu daal laa ne woon maanaam dinañ ko wax ni bu ñu wàccee kaamil ba noppi. nee na loolu la waxal ni bu noonu. bu war a wax ñu wax ko. bu ñu demee ba pare ba demaat fee. mbokk yi ñëpp ñëw nañu. leneen lu ci war a dolli ko mu dolli ko ci. ma mbokk yi ñëpp ñëw nañu. nee na mbokk yi ñëpp ñëw nañu. Modou Diama nga ne. Modou Diama nga ne. di xalifab El Hadj Ablaye Thiam. di xalifab El Hadj Ablaye Thiam. bàyyi ay itam ñëw. bàyyi ay itam ñëw. xarit yi. xarit yi. Ablaye Gaye mii. Ablaye Gaye. mi ngi nii mi ngi nii toog. bu ma limee damay juum. na sama yaay dénkee woon euh, Cheikh Thiam sama njaboot gi. nee na na yaayam dénkoon Cheikh Thiam njaboot gi. sama maam Ablaye Thiam it noonu la dénkewaat Cheikh mi njaboot gi. noonu la ko maamam Ablaye Thiam dénkewaat Cheikh njaboot gi. tawatee nee na ba mu tawatee. sunu borom xamal ne ko day dem. xo sunu borom xamal ko ne day dem. mu jëlee watiir këram. mu jëlee watiir këram. jaar ba ca buntub jaar ba ca buntub Cheikh. woo ko mu ñëw. mu woo ko mu ñëw. mu ne ko man nag maa ngi dem waaye du ma ñëwaat. mu ne ko man de maa ngi dem waaye du ma ñëwaat. waaye gaa ngi noonu. waaye nag njaboot gaa ngi noonu. ci sa loxo. ci sa loxo. lu ñuy def. nu ñuy def. nan la wax. nañ la wax. luñ la wax. luñ la wax. seexit maanaam ci gàttal daal. seex ci gàttal lépp matale na ko. matale na ko ñoom ñi di njaboot gi. nee na ñoom ñi di njaboot gi. matale nañ ko Fallou Thiam muy seenu taaw ñëw na. matale nañ ko ndax Fallou Thiam mi seenu taaw ñëw na. waaw kon loolu it ba tey. kon nee na loolu ba tey. dinañ ko ci seere. dinañ ko ci seere. kon dëkk fee Daaru Minam muy nit koo xam ne xañ na aw melokaanam sax ak jikkoom. mën na koo may lu nekk ndax dafa fonk dëkkandoo fonk mbokk ndax dafa am yoo xam ne ku ko yàlla dimbalee te mooy bëgg say mbokk bëgg say dëkkandoo nga xam ni amooy noon ci say bokk amooy noon ci say dëkkandoo koo xam ne saw melokaan mooy loolu loo soxla sa boroom mu yomb la sëñ Cheikh nag loolu lañu gis ci moom nun ñi bi ñuy bokk ak moom di nekk fii eh, Daaru Minam ñu daan bokk jenn jàkk di ñuy jullee àggoon na foo xam ni këram gii dafa am lu ko sabab waaye àggoon na foo xam ne bëggatu dara ci àddina Baye Omar Lo ci boppam moo ko moo am lu mu dugal ci boppam ba tax mu def xelam ci tabax kër waaye demoon na ba toll foo xam ne yëgul woon ne sax dafa war a am war a am dara lu moom ci àddina lii may wax lu mën naa koo seede ndax toog naa mu toog mu ne ko sëñ Seex fii nga nekk day kër jàmbur te da ngaa yor njaboot bul xool ci sa jëmm rek mënoo ñàkk ab dëkkuwaay waaye moom dem na ba defatul woon xelam ci ne moom dafa war a am lu moom ci àddina man loolu xamoon naa ko ci moom bu baax ba muy toog ci ruqam boobu xam nañ ko toog nañ nii am koo xam ne ñaanal na ko digal ko mu war a génne saraxu saraxu aw nag nag woowu ci sama la ko joxee booba sax ñu ngi waxtaan ba mu yàgg mel ni dama koy war ne ko yittewoo naa ko mu may xamal ne lu may joxe si ndigalu saa borom laa koy joxe waaye bu doon bu doon ku ko yittewoo rek moo ko war a moom am na ñu ñu jege ñu jege lool ñoo xam ne ñoo ciy jot man yàlla dafa dogal dañoo boole ñu yàgg ba daanaka duma ma séenu ci moom dara li tax duma ma séenu ci moom dara mooy mën naa téye dara mu jege la lool fekk lu mu la ko yéene yéene du sa du sa du sa du sa du sa wërsëg ba ci njàngum alxuraan mii day am nu mu koy nu mu koy taamoo léeg-léeg mu war koo def ma jege fi lool mu mu keneen ku sori lool loolu dañoo dañoo yàgg ba nga xam ne man dañoo dem ba euh, dañoo da damaa damaa miinanteeg moom ci ay ci xeetu nu muy jëflantee àgg nañ yoon boo xam ne kër sañ Sidi Maxtaar booba président Abdou Diouf booba ñëw na ca kër ga xat lool waaye kero bi ñu àggee dafa mel ni moom daa lu ma bëggoon wan dañ bi ñu agsee yoon wi jaar jaruñu ci kenn waxuñu kenn ubbil yoon win jaar dañuy dox ba yegg ca sëñ ba fa sëñ ba nekk sës rëkk ci sëñ bi te booba kër gi xat na xat goo xam ne mooy bi sëñ euh, bi sëñ Alaaji Baara di door a génn àddina kër gi xat na xat goo xam ne fa lañ dajee président Abdou Diouf mu ànd ak maître Madické Niang booba dugg booba booba dugg jafe na gis sëñ bi jege na jafe na waaye moom mii keroo bi ñu agsee dañuy dox taxawuñ fenn dañuy dox ba agsi si sëñ bi mu nuyu ko wax ko yitteem ñu génn te binduloo na ma lettre boo xam ne booba sëñ Sidi Matar la ko doon binduloo lettre bi li muy waxee man damay dem ba ci biir du ma ñemee du ma ñemee bind mi ndax wax ji day day diis lool wax ji day diis lool xam nga moom njàngalekatu alxuraan la léeg-léeg wax ji dana diis diis goo xam ne du dama day mel ni dama dama dama ko xaw a bind. waaye comme nag dama ko bind lool te lettre bi ci sëñ Sidi Matar la jëm lettre bi ci sëñ Sidi Matar la jëm. bi yàlla dogalee lettre bi yegg ci sëñ bi it na ko sëñ bi nangoo tax na ma ma am wóolute. ak ak ak rafet njort gu wér ci ne sëñ Cheikh mi am na may gu ko suñ borom may te loolu ci nit ñi ni ñu dëkkee ak lima ma xam ci moom looloo tax ma ma mën a seede ci moom loolu. la Zé